nee maa ngi jéggulu yéex a ñëw gi nee dama am ay gan nee léegi bi may ñëw nii rek ne doomi Cheikh Mourtada moo fa ñëwoon nee xaw faa def ab diir waaye bëggoon na ma gën a teel a ñëw lii nee cant gi nag ne ñoo ngi koy tàmbalee ci sunu kilifa yu mag yi. ne tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax bis bi yëg na ko ne bég na ci ne ñaan ci ne Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaibou ne bis bi yëg na ko bég na ci ne ñaan ci ne mu law ci mboolem kilifa yëpp ne ba yegg sunu xarit bii. nga xam ni sëñ Moustapha Gueye ay doomi baay lañ ne waaye li doon doon doon ay doomi baay ne sëñ Moustapha Gueye sama xarita ne di sama lépp ne duñu umpante ci dara ah, ne nii soxna jaara def ne ñu jox sëñ Moustapha Gueye cër ci bis bi ne lu soxna jaara war a def la waaye man mii la ko defal ne maa ngi sant sëñ Moustapha Guèye ne di jaar ci moom ne di santaale kilifa yëpp ne ñi fi teew ak ñi amoon yéenay teew fi ne di sant ñi fi nekk ñëpp ne di ci beral cant nag jànkati xasida yëpp ndax ni ñu taxawee ci bis bii ak ni ñu taxawoo seen doom ji muy maam jaara ne man mii lañ ko defal ndax bu ñuy tudd soxna jaara ne ci xasida yi ne sama jëm rekk a tax ne lu ci waay def ci lu baax rawatina jàngkat yi nee man mii rek lañ ko defal nee ñi ngi sant ñi ma fi fekk ñëpp tàmbulee ko ci sëñ seexu naa mbaj jaar ci jàngkat yi fi nekk yëpp nee nag di sant waa juróom mu jigéen wi mooy soxna naata di yaayam nee ci taxawaayam nee ci bis nee ak ci soxna jaara nee di siyaare sama mag ju baax ji mooy soxna yëmmu nee di ko sant bu baax a baax nee kàddu yi mu jël nee waruma ci woon a teg dara nee ak cant rek moo dul doy waaye bi ma ko fekkee muy wax nee doy na sëkk nee soxna yëmmu moo fi sun lépp nee di siyaare soxna Xadi Faal nee ak mbooleem ñi fi nekk yëpp. soxna Fatou Lo ak soxna Diarra sama jarbaat nee di beral cant nag sëñ Cheikh Ka ndax bis bi moom nee nu mel rek mooma nee ci taxawaayam nee ci pas-pasam ci féeteem ak soxna Diarra nee ay fan a ngi nii nee tëddul nelawul lekkul. fu soxna jaara jëm. fu soxna jaara jëm. mooy ab safooram. nee mooy am safooram. moo ko fa yóbbu. boole taxawaay yu rëy yu am ci moom. nee di santaale mboolem ñëpp. ak Mbuutu Mbay Sàmb. mi nga xam ni. moo seex ka ñoo ànd liggéey bi ñoom ñëpp. nee day mel ni boo boo limee rek. am ñoo bàyyi. waaye ñëpp daal. sëñ Xaadim ne ñu ngi leen di sant. nee soxna jaara nag. dama ko tuddee sama sëriñ. nee dama ko tuddee sama sëriñ. ba noppi nee ba noppi maam jaara di sama féete. ba ne li may doon doon nee li may doon doon waajuram. sama sëriñ laa nee maam jaara sama sëriñ laa koy wooyee. waaw mu doon koo xam nee mu doon koo xam ne. bi mu xamee nday ak baay. bi mu xamee nday ak baay. la ma taxoon ba tey. nee muy loo xam ni. da jur doom sax te du la taq. da jur doom sax la taq. waaye moom. li may ñàkk ñàkk toog. ak li may ñàkk ñàkk nekk ci wetam waxtu wu ne. nee teewu taqaay bi rek. nee lu yàlla dogal la. mais maa ko digoon nag. ni ko boo jàngee ba am BFM. ma defal la sa ngontum turandoo ngontum maam jaara. nee man fàtte woon naa ko waaye mu taxaw ci ni yaa ma ko digoon te loo ma wax di nga ko def nee moo sabab bés bi waaye ñu santaale ci turandoom maam jaara bu so soxna jaaro ndax moom li dal xale yi yëpp dalu ko bariwaana gone bu nekkee ab liir waajuram du gudd tànk. dañ ñaan duma ko yóbbu ci mbooloo waaye bi mu nekk liir lay màggali poroxaan ba nii mu toll mooy turandoo maam jaara ne loolu nag mu am tawfiix ju toll ni kero bi Cheikh Mamadul Muntaxaa di ubbi polisu jannatu bi wala passeport yi ci lañ ko ko jox ni ko soxna jaara lañ ko tudde ne sëñ Muntaxa téye ko bu yàgg. ne ñaanal ko. mu doon xarit mu Mouhamadul Muntaxa. ne mu sopp ko lool. ne kon nag bis bi ñoo ngi siy ñaanal. Cheikh Mouhamadul sun borom yàggal ko fi. ne te wéral ko. ba yéene yi mu am. ci liggéeyal Serigne Touba. mu defee ko ni mu ko bëggee jërë ngeen jëf ne maa ngi leen sant yéen ñëpp jërëjëf ñoo ko bokk sëñ xaarim jërëjëf sëñ xaarim daal sant na ñëpp loolu nga seede ci sëñ Cheikh Kan nag la ko ndax bis bi yaatal na ko top lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 bu bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc